waxuma ci dara du ma politique waaw su ma doon politique nag naa ko jàppale waaye du ma politique. ayca <laughs> mi ngi noonu yaa Oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar di la tatagal bu baax may ziar tamit sama confrère bi nga xamante moom tamit. macha allah di ziar ñi ma fi tasal yëpp ah, ginnaaw eh, nga xamante ne ne mooy Khalifa ah, na leen ah, wax ni dañ leen jiiñoon li nga xamante ne mooy mbirum luubal tey ñu gis ne eh, ñu ngi wax ci raxas seen der raggaleen ba ñu set ñu mën a ñëw bokkaat ci li nga xamante ne mooy élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal en 2024 mu mel ne nag eh, bu si ñuy d'accord ñenn ci askan bi d'accord ci ndax ku ne xam ne ni Sénégal mbirum luubal daf fi doon loo xam ne lu fi yàgg la euh, ci côté ñi nga xam ne ñi si ëpp ñooy nekkee ci pouvoir bi ba tax na tey loolu tax na yenn ñenn ci jeunesse bi seen xel gënoon a dal ci ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ndax nag bu ñu waxee dëgg moom nekk na impôt domaine pendant des années euh, tey mun nañu wax ni ba mu fay génn bañ ko audité amul fukki dërëm boo xamante ne euh, toppee nañu ko ko tey bu fekkee ni ñi nga xamante ne tey dañ leen a jiñoon luubal ñu ñëw bëgg leen a ragg teg leen ñu bokk ci candidat yi mën na am sax ñu dem ba ñu choisir leen ñu war a mën a yor réew mi tey loolu ban ban ban ban jàngat nga ciy def. xanaa choisir leen ñu yor réew mi rek dañ leen choisir rek ñu yor réew mi loolu donc laaj jàngat. ñu choisir leen ñu yor mi parce que gis nga politique dafa sew. politique am na loo xam ne danañ la ko sax doo ko dafa sew mbir la mu sew ruuj bo neexul bët lool doo ko gis waaw kuñ dem na ba tuumaal la dem ba mu yàgg ñu ne la lañ la tuumaaloon ba ko jeex na tuuma la mais du jël tuuma bu ko jaawale ak jël su fekkoon ne jëfa dafa jël ñu jàpp ko ngeen ne waaw kay waaye dañ koo tuumaal ne ko da ngaa def li da ngaa def li da ngaa def mu ne defuma ko ñu ne ko yaa ko def da ko dama lay tëj tëj ko kee bañ ko tijee dem na kee bañ ko tijjee toog na moom daal li gën a rafet nañ baal Khalifa Sall nañ baal sonk nañ baal Karim bàyyi ñoom bugaan ñëpp ñu dem rek suñ demee ci terrain bi lu waaye am jël waaw nañ leen bàyyi rek ñu dem parce que boo amee ay ndaw nag yuy góorgóor da nga leen di da leen jàppale yow am ay ndaw ndaw yaa ngi góorgóorlu eh, di di def lu njàmbaar gu ne wax dëgg da nga leen di da leen di jaajëfal da nga leen wax aw leen góor waaw waaye defee leen ko nii defee leen defee leen ko nii noonu la noonu la kilifa yi def waaye nag duñ leen xeex boo leen xeexee du sotti dañ leen di bàyyi ak seen bëgg-bëgg ñu dem uuti ndax ñu ñeme waaye boo leen xeexee boo liggéey ken kenn du ñeme waaw te nag ndaw yi buñ leen xeexe kon kooku fii ni am màgget dinañ bëgg a jox réew mi màgget man te yor réew màgget du yor réew réew ak ndaw koy yor mag ne ci wetam diko ko digal réew ndaw a koy yor mag ne ci wetam di ko digal mag mënta daw mënta tëb mënu dara waaye mën naa jox xalaat bu rafet voilà. macha allah kon noonee ñu ko dégge ay ndaw ñoo yor mi kon mu mel na ndaw yi bari nañ ci politique bi waaye bu nu signalé rek xëy na am na benn moor démb ci kaso yi ci ñëw koo xam ni Pastef la bokk ñu jàppoon ko ci jamono yi manifestation bi su ma juumul vingt 27 mais xaw ma 28 ñu jàppoon ko ci manifestation yi démb ñu. est que taxaw jotul est-ce réew mi jëmu ci ay guddi gu ce que tamit kooku nga ci kaso bi la dee lan mooy nekk ci kaso bi yàllaa noonu fa lay dee yàllaa noonu atam di yam yàlla nag laa wax qul inna tafiruna minhu fa innahu mulaqi yàlla mi ngeen daw dajeeg yéen da doon dem kaso ba pour daje fa ak dee lii problème bi kay mooy lu tax ñu tëj ko looluy problème bi waaye kanta dee gi moom kenn du dee sa dee jotul koo gis mu dee deeyam jot na waaw nit ñi nag ñoo mel noonu liyee ko reek ko reek dañ ko liggéey ak dañ ko def liyeeg dañ ko rek la ngay dégg waaye ku dee sa de sa dema jot qul innal mawta lazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum suma turadduuna ilaa aalimil xaybi nag wa shahadati fa yunabbiukum bi maa kuntum taamaloona ñu yóbbu leen ci yàlla nag mu leeral yàlla leeral li nga nekk woon ci àdduna yëpp nga ne taafaax wala mu leeral li nga nekk woon ci àdduna pat loolu yaakaar nga ne sa yërmande rek ñàkk jom aja yaa sa tey lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ki nga xam ne mooy président Macky Sall déclaré na non candidature am si élection yi nga xamante ne ci la ñu jëm gis nañu ñoom ñëpp ñu daal di caali ñu ngi si ñuy jooy ñii di yuuxu ñii di daan ah, tey eh, lan nga leen di wax ñoom ñi nga xam ne ñoo ànd moom ndax dégg nañu nga wax ci say wax ni góor dellu ginnaaw te loolu nag bokk na ci loo li nga xamante ne eh, sama confrère wax na ko sànq am na si ñenn ñoo xam ne ñu ngi jort ni président mën naa dellu ginnaaw te bu ñu xoolee eh, bu fekkee ne topp nañu mu àndal lu ñu mel war nañ koo mën a xaar ndax ñoom ba tey dañuy wax ni bu ñu sañoon moom mooy nekkaat ci bopp réew mi moom mooy seen candidat lan nga leen di wax ñoom ñu sañoon mooy nekkaat ci bopp réew mooy seen candidat waaye sañu jeex na Macky nee leen sañu ma bàyyi na seet leen ko sañ ah amul amul amul leneen ni ah, jeex na uh-huh. sañul bu jeex na bu sañoon uh-huh. sañu ma sañu ma mu jeex ah loolu rek la amul leneen uh-huh. parce que gis nga eh, nit ñi xam leen baax na bëri na ñuy jooy di saalit seen intérêt bopp dong la ñuy jooy seen bopp la ñuy jooy jooy luñ Macky seen bopp la ñuy jooy jooy luñ Macky seen poche seen pochette moom la ñuy joxe waaw ndax bu fekkonte ne li ñuy woote dëgg la Macky duñ ko gañe ci maire yi Macky duñ ko gañ ci député yi député yi ñaar rek la te bu duguloon kooku dem fekk kon kon du dem waaw waaw léegi yow nga ñi nga jooy di yoo booba ñoom ñu ngi fi lu tax góorgóorloo ñu am am député yu bëri lu tax góorgóorlu nga gagné maire yi mais yow nga gagné maire yi dem ba mu yàgg ñu nanguwaat maire yi ci sa loxo boo ko boo deful lii lii mu def su ko deful du sotti yuux yi yëpp mënta ñàkk yuux yi mënul ñàkk yow moom mënta ñàkk yooyu jooy jooy yuuxu fii yooyu yëpp mënul ñàkk pour pour ñu defee ni gëm na la pour ñu defee ni Macky bëgg na la nga di la am na ñoo xam ne bu ñuy jooy dañuy defaat nii ba xam ne ñu leen di xool wala xool ñu <laughs> di di rey ba <laughs> ñu ngi leen di filmé mu déet voilà mu <laughs> mel ni daal dëggu rek dëggu uh-huh. daal moo baax uh-huh. dëggul dëggul dëggul uh-huh. koy ànd ànd lak moom ci yàlla su yàlla jeexee nga bàyyi ko waaw fekk yàlla nga fa ànd leen waaye boo gisatul yàlla bàyyi ko rek loolu mooy dëgg mu mel ni ba tey bi décision bi daanu am na ñenn ñoo xam ne jóg nañu wax ni président àndul ak sagoom bi nga xamante ne mu ngi def déclaration boobu Euh, maanaam li nga xam ne moo xewoon ci réew mi euh, muy euh, manifestation yu métti yi nga xam ne xew na fi am ay bakkan yoo xam ne rot na ci moo waral mu ragal bokk ci li nga xamante ne mooy présidentielle yi ndax amaana bu ko bu déclaré woon ne dafay bokk ci présidentielle yi mën naa jur lu gën a métti ci réew mi que li nga xamante ne moom la ñu weesu woon tey yow bi nga dégloo déclaration président ndax gis nga si moom ni que dafa dañ ko dañ ko dañ ko waaw dañ ko xoj wala book dañ ko poñe ngir mu def loolu président bi koy def sago la ko defee gis nga ne am na nit ñoo xam ne boo leen jiitoo ñuy defee maa tey da leen def maa tey tey waaw ah jiite nga ay nit ñu def maa tey bañ gañi la gañi lañ ko mën a tuddee ndax am na loo xam ne ku daan am ndam nga ba mu yàgg de amatoon ndam ñu nga mujj a ah, kon ko maa tayaat nga indi yow maa tey Macky Sall boo ñu loxoom damm ñu loxoom defuñ dara nit la ndax waxoon na ne danaa wax mm-hmm. wax a jot mm-hmm. xanaa comme ba muy wax dama danaa wax dañ ko xoj mu ne danaa wax ba muy wax danaa wax dara xewul danaa wax waaye wax jotagul waaw sama wax jotagul candidat troisième mandat danaa ci wax waaye duma ci wax léegi parce que yàgg na ko wax ba mu jotee nag wax na ci jeex na léegi daal loolu dañ ko war a leem ba mu jekk nii def ko ni dossier bu ñu leem leem ni laxas ko ba mu takk ko moom mu dëgër roof ko ci suufu laal bi jooju wax jeex na ñu ñu wax ne moom daal na dimbale Khalifa Sall na dimbale Sonko na dimbale eh, Karim Wade bàyyi leen ak ñoom buggaan na ñëpp ñu dem liggéey ku ku yàlla tudd rek nga dem ku yàlla tuddul doo dem gis nga yàlla yàlla mbiram dafa doy waa waaw su ko neexee eh, kii doon président doo ko foog te du jib coow du jib waaw waaye réew boo ko jiitee Macky maa ngi koy jaale di ko sigil ndigaale bu baax a baax ci ñi nga xam ne jógee nañ fi euh, ndax ni mu ñu jaalee lañ ko war a jaalee waaye itam euh, am na loo xam ne daal ku ko gis ci sa njaboot réew mi nar a tàkk réew mi nar am problème te ngam man ci dara te defoo ko yàlla na joxe moo tax mu man na ci dara waaw bi mu waxee loolu dégg nga coow bu noonu troisième mandat la jëm nooy def ko réew mi day tàkk mm-hmm. kooku moo amul amul problème mm-hmm. moom xam na ko sax waaw xam na loolu waaw mais gannaaw man man naa man naa maîtriser loolu man koo téye ma def ko parce que maay maay maay njiitu réew mi ma indil sama réew jàmm bët bañ ko daan xool ñu di ko xool euh, euh, dañ ko doon tuddee ñu tuddee ko ndax Sénégal réewam teraanga lañ wax waaw ba dem nañ ko fi dem nañ ba léegi rek réewam tedd la waaw boo ko bëggee defaraat da nga koy indiwaat ci rek mu jeex. Ah, mu mel ni ki nga xamante ne tam moo di Barthélemy Diaz gisoon nañu mu daal di àddu wax ni euh, kii di président euh, Macky Sall bés bu présenté woo maanaam euh, dina dina dina def troisième mandat troisième candidature am da koy demandé bu ko demandé wul moom mu bàyyi politique bi nga xamante ne président génn na wax ni du bokk mu daal di waxaat ni buñ ko bàyyi mu dellu si waat ci li nga xamante ne mooy décision am ñaari wax yooyu naka nga koy jàngatee waaw loolu waxi politique la rek waxi politique la rek da ngay tànd rek da ngay tànd fii ba xam mooy li ma la wax bul di gaaw a wax rek waaw moom daal lu mën a am mm-hmm. Macky wax na li muy wax rek mm-hmm. dinañ leem dossier yi denc buñ ko sulliwaat mm-hmm. bés bu ko yëngalee te ku ko dugal ci yëngal boobaa dina métti trop ci réew ndax lii fi am mosu fay am tey ñun bële du fi amaat wala bu ko gën a métti ñëw am fi kon nag bii ñëwaat muy gën a tàng téeméeri junni yoon gis nga yàlla su rëddee nga far mu rëddaat nga far booyee boo nga bañ a rëddaat buy rëddaat bu bu bu rëddaatee da lay rey rëdd sa kaw ba xam koy far kenn du ko far waaw yàlla rëdd na nañ topp ci li yàlla bëgg wan nañu lu leer ne ah seen réew a ngi tàkk de li koy taal na leer na kii bu waxee lii bu ne premier euh, dinaa dem troisième manda réew mi tàkk su ne du dem troisième manda réew mi fay kon Barthélemy Dias li mu wax ah, wax waxi politique la rek bu bu bu bu nangam nangam bu amul nangam nangam wa amul mu delluwaat ci la